فلا ترضون يا خير قوم بالقضاء أفلا والدليل الصفا لما اقتفى وعفى ما للورى من محل في القرى وخلا نعم إمام لنا الناعي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعملا مهلا نعي بفيك الترب فهت بما من أجله كل شجو في الحشا دخلا مقالك المر لا أصبحت ذا فرح من الهموم به ألبستنا حللا benn bayt laa ciy firi daf ni Sidil Xaaj Malik weer wu mat wa weer wu mat wa toll ci fukki fan ak ñeent Badar tey làmp lëndëm ba day suux na bis ne ka tey ji Alaaji Malik génn àddina ne waaw yéen nit ñi ndax du ngeen kontaan ci dogal yàlla nee na guddi gi lëndëm na kukk tey jii ci Afrique ak Sénégal bi El Hadj Malick génne àddina nee na nit ñi kenn xamatul foofu toogee nee na tàggekat bi bi mu ma nee El Hadj Malick génn na àddina dama ko ni yërëmal xam-xam ak jëfe yër yërëmal xam-xam ak jëfe jirim nañu bis naka tey nee na ma ne tàggekat bi yow daal bu ma la rusul woon tibb suuf xëpp ci sa gémmiñ wax nga lu ëpp de indi nga jàqare ci doomu aadama yépp sa wax ji dafa wex kontaanu ma ci de yow daal solal nga ma mbubbum njàqare naayta xayra imaamin kaana yurshiduna wa kaana yamnauna al idlaala wa zalala أعني الإمام الهمام الحاج من أمست مآثره بين الورى مثلا tàgge nga ma ngën ji njiit tey tàgge nga ma ku ku gën ci jubbanti nit ñi ki daan tere nit ñi ak sànkuti ak réer sang balaay wax Seydi El Hadj Malick ki nga xam ne jeexitam yi tey adduna bi yépp mën nañ cee jànge loolu moo tax daairatul atqiyaa yi daje tey ci ndigalu Serigne Babacar ne nan waxtaane jeexitu Seydi El Hadj Malick ki ma ciy teg moo di Mouhamad Salim ibnu Qusam al Alawi mu nga dëkk ca samsat yi ca gànnaar daf ni almawtu aqrabu maa fi lgaybi yuntazaru wa fihi muctabarun in yulfa muctabiru nee na li nit ñiy xaar te mu nekk ci kumpa la ca gën a mat a xalaat mooy dee nee na ku judd ku nekk dee dana la nuyu ji donte dubleel nañ la sa dund ñaari yoon ñu ne ko lu tax mu ne suuf lu sori sori te ngay dox jëm ci dana ma sa jege de waaye tàggekat bi yaa rëy loo wax naayta yaa ayuha naayi murabbiyana imaamana malikan man umaruhu duraru naayta yaa ayuha naayi mujaddiduma min shari xayri alwara xat kaana yandasiru mu ne tàggekat bi tàgge nga ma ki daan yar nit ñi ci wàllu yàlla de tàgge nga ma sunu njiit la ki nga xam ne dundam gi jamaa la tey or tàgge nga ma ki nga xam ne moo doon mu jaddit ci siècle bii di yonent bi ni téeméeri at bu nekk yàlla danay yebal ku yeesalaat diine yonent bi tegaat ko palaasam waa jooju dëkk ca samsa bi ca gànnaar di Muhammad ibnu Xusum nee na kookaay Seydil Hajj Malik radiallahu anhu ki ma ciy teg moo di Mouhamed Abdullahi ibnu Mouhamed Yaban al-Jakani bi Seydi El Hadj Malick génnee daf ni salaamun ala cheyqin tadammanahu ramsu jamilin muhayya duunahu fi lbaha chamsu maa ngi nuyu sëriñ bi nga xam ne bàmmeelam wër na ko tey borom dund gu rafet ga ki nga xam ne dundam nga moo gën a fannaaral jantub njolloor imaamun yudillu darsu yabki li faqdihi wa tashtaquhu lwusta faraiduhu lxamsi ki nga xam ne bi mu génnee àddina bindu xam-xam yi daf doon jooy julli yi juróom di jooy ah gëw ma ko waay ñu ne ah mu ni delloo nañu Seydi El Hadj Malick tey ci bàmmeel la amri la in amsayta billaxdi saawiyan wa ruddat alayka turbu wansarafa al insu nee na koy boo dem toogi àddina baaxatul jeex na tàkk ndem alaaji Malick ci biir suuf ki ma ciy teg moo di Mouhamad Taban al Alawi daf ni yaa taalib al ilmi aatiika malika al athar tadfar bi xaajika min junaydid al asar nee na yow mi bëgg xam-xam kaay ma wan la alaaj malik loo doon sàkku rek ci imaamu junaydi mi sos ngirum tasawuf nee na boo demee ci sidi xaaj maay da nga ko fa fekk de fa in jahilta li xaali cheikh maljaina isma uhaddithuka ma qad saxa fi lxabari nee na soo réeree al sidi xaaj malik ni suñu wéeruwaay ma nettali la nga xam ni loo fekkee ak luñ la wax du benn fa huwa alimamu alladi saxat imamatuhu indi wa siratuhu min axsani siyari nee na sidi xaaj malik mooy njiit la nga xam ne moom ak njiitam wér na kon ndeke am na ku jiite te daf ko foroot waaw ndeke am na ku jiite daf ko foroot nee na sida xaj maali mooy njiit li nga xam ni ak njiitam wér na nee na jikkoom vérifié naa ko bokk na ci jikko yi gën a rafet shawahid yi ñu def ci moom tey ay taalif dajale naa ko ba muy juróom fukki taalif ak ñett yi nga xam ne way la ci arab waxuma yi ñu def ci wolof waxuma nag yi bind ci moom ci français ku demee ne Paul Marty ak ñi ca des kooku moo tax ma ni fokk ma ñaan sëriñ bi mu am siiwi ñu dem ci ci leneen ci ma koy tëjee ci shawahid yooyu parce que mën ñu ko wax lépp moo di muhammad ibnu abdillah al alawi daf ni xalila yaawja wanzila bi tiwaawooni tiwaawoonu fiha li yumnu lilmutayaamini fama taara fiha taa'irun mutashaa'imun walakinaha daatu tuyuri almayaamini nee na tiwaawoon day ku am xel doo fa romb mukk te wàcculoo fa ndax nee na loo fa ñaan de yaa yëg ak yaa yëgul nangu na ñetti xeeti nangu nag moo am benn mu nangu mel na nga ko bëggee woon ci saa si wala mu nangu ñu fare ko sa bakkaar wala mu nangu ñu dencal la ko muy tuyaaba yowmal xiyaam waaye tuyaawoon kenn du fa ni allahuma te nanguwuñ ko nee na walam yaku qadaman fi tiwaawana manzili wala hiya min ardi wala min mawatini nee na man day dëkkuma Tiwaawan du sama kërit de du sama suufas maam du sama dëkkuwaay aba allahu illa anna man amma malikan yafuuzu bi dal gabn yowma tagaabuni waaye yàlla rus na moosin yowma alqiyaam nit dëgg Tiwaawan di fa sàkk tuyaaba di fa seet xormay Cheikh Alxaaji Maalik di fa jokk ji bisu torax te boobu di yowmal xiyaam ci ñennet ñu ñëw yàlla di la toraxal dama li ma jublu ci jiital loolu dama bëgg ñu xam ne jekki wuñ ba tey jii ñu door a créer wax yi ñuy wax jëme ko ci Seydil Hadji Malick yii bañ ko bindee man judduwuma parce que ñi may bëgg a waxtaane man bi ñuy génn àddina ñetti at laa am bi sëñ Babacar di génn àddina ak Cheikh Al Hadj Mansour man ñetti at laa am maa ngi judd 17 août 55. xanaa kay kon fabrication amul fi te nit ñi dañoo gaaw de te loo wax ñu taawil ko kon jekkiwuñ ba tey ñu fabriqué ko de te lii de xam ngeen ni du waxu ñu sant si te tudduma Serigne Hadi tudduma Serigne Alioune Guèye tudduma sëñ Cheybatu Fall ñu xonk cooy yi rek laay wax ok bi may tëjee témoignage yi moo di 1911 dossier 13 numéro 131 Sénégal 4 waaw koo xam ne kii ci archive yi ngay liggéey booy boo nga daal dem France nga xool daa nga fa fekk génn kayit goo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo bind signé ca te kenn saxal leen suukar ni Cheikh Al Hadj Malick raw nag maasam te boroom xam-xam ku mu seede dee nga ndax dañoo añaan de boroom xam-xam ku mu seede dee nga iblis dafa dajeeg yonti yàlla isa yonti yàlla isa ni ko iblis ci loo nekk mu ni ko damay baana baana mu ni ko ñaata marchandise nga am mu ni ko am naa ñeenti marchandise mu ni ko ban laaj ban mu ni ko am naa marchandise mu ñu ko wor am naa marchandise mu ñuy wax wax la ca gannaaw dëgg am naa marchandise mu ñuy wax rëy am naa marchandise mu ñuy wax añaan dañ ceen Isaa ni ko loolu du jar mu ne ko jar na ba noppi di dama koy délivrer ji seeni borom mu ne ko kon de nga wax ma ñu jënd loolu mu ne ko rëy buur a ko jënd juddoo ci maas gi màgge ci maas gi xëy ni gan ni ko dindi samay wax ma saagaa gal la waaye da ngaa kii rek waaye taxulaa kii nag mu ni ko boobu de doy na waar mu ni ko war ku ko jënd mu ni ko baana baana baana baana moo jënd wor mu ne ko nu mu ko jëndee ci waxinu Sénégal jënd potu tamaate daa di ko ubbi jël fël-fël sotti ci dëwlin ubbi beneen potu tamaate daa di ko jaxase fecc li daal di am ñaari pot kii kay wor la wala jaay jën démb mu des nga denc desit wa xëy tibbi suufas gi xëpp ca ni léegi la jóge ca tafas ca waaw sëñ bi nee na tooyal ko teg ci bàyyi tam siir bi na xanaa yow mbaaw nga dëkk waay sëñ bi nee na wala nga gar ga mboose caaxoñ yi sëñ bi nee na day jënd jën moo tax ah ah dana waar de nee na wala ñu jaay la yantin téye ci bopp ba naan coof baa ngi bay tam si ne te guddi kat dañ koy jaay timis xam nga kon ñoo jënd wor mu ne ko añaan moom ku ko jënd mu ne ko añaan fa innama yashtarihi al ulama ni ko borom xam-xam moo jënd añaan da ngay woo moroomam mu toog di wax lu kenn mënu la dindi yoo xam ne xar-xaru doj la mu toog xew-xew ma tas ñu ne ko waaw waxtaan woon nu mu demee mu ne asawaa ji de yaa ngi ne soow na de waaye yàlla musal ni ci bàyyi tamsiir mii nag sawaa ji nu mu demee mu ne ah soow na ba sàyyi de soow kat la de wala mu ne yeewu na de borom xam-xam nag sëriñ la ci jamono ji. sëñ bi nee na waaye kooku du borom xam-xam sëriñ la ci jamono ji. waaw sëriñ. borom xam-xam ya nag dajaloo. ñi may bëgg a tudd seen tur dañoo bind si ñebe. waaw mille neuf cent ah. di ci desati. dan laa firiwul. kañaan. ah wax la ca gannaaw dëgg. kooku nag desul dama ko bëggoon a tëb. ñeen baal ma nee na jigéen a ko jënd génn dem marché sànn nga ñëw ni foo demoon mu ni ma man génn ma kër gi de moo tax dama ko bëggoon a tëb waaye yéen kenn mun leen a rëcc wardu dëkk bu dëkk lii na waar sëy bi nga baal ma yàlla xam ne dama ko bëggoon a tëb ndax daayira yi bi jigéen ñi dañ ci jàmbaar lool sëñ bi nee na waaye góor ñi dañ ko xam moo tax nanguwuñ ma tëb ko boroom xam-xam yooyu ci mille neuf cent onze ñoo dajaloo bind signé ni Seydil Hadj Malick raw na ak maasam waaw al waraqa allati katabaha akabiru al ulama الذين كانوا يشهدون بأن شيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه سبق أقرانه في العلم والعمل كتي جك مودي تيرنو أحمد بابا سال من نكون في تشلون تيرنو ابن عباد الله من نكون في جورنجل تيرنو سيسي انفكي من نكون في غاول ceerno jam li ma nga nekkoon fu ñuy wax tebe gut ceerno Ousmane Ndiaye Ba ma nga nekkoon fu ñuy wax baabaabe alxaaji Demba Awa ma nga nekkoon Madina Ndiaye be ceerno Maxtaar Kebe ma nga nekkoon Barobe alxaaji Baaba Ñang albadawi alxaaji Zeynul Abidin ma nga nekkoon Xayralaaw alxaaji Lamin Jigo ma nga nekkoon jimet ceerno alpha amadou dia ma nga nekkoon fu ñuy wax ñaabina alxaaji cheikh thiam ma nga nekkoon fu ñuy wax fati ñii de ci couche peuple Sénégal lañ dëkkoon daje bind si ñeeni Seydil Hadji Malick raw nag maasam ci xam-xamu diine ak xam-xamu yëpp ak jëfeeg sellal léegi nag lii mooy muqaddima bi ñu dugg ci conférence bi pour waxtaanee doomi Seydil Hadji Malick yi ak muqaddamam yi loolu moo tax ma ni ma ñaan mu am siiri parce que lii du si la xaj may sax li ma ci bëgg a wax dama koy coppati ah bay tafsir siifal ma sëriñ bi rek bay tafsir nee na fokk sëriñ bi may ma ko waaye sëriñ bi waxagul dara de sëriñ bi ne naa continuer njabootu Seydil Hadj Malick ñi mu jabooti ci deret ak ci ruux ci 1916 ci dossier 14 ba tey ci Sénégal 4 archives nationales françaises université populaire ba ñu jëkk a recensé ca Tivaouane ñooñu ca tudd ñu ñii day nattu nañu leen ci xam-xam ak njub ak sell kenn ku ci ne fees na te kala rootal mooy Seydil Hadj Malick mooy ñi may jëkk a tudd ci université populaire boobule ka ci jëkk moo di Serigne Ahmed Sy ibnu Seydil Hadj Malick radiallahu anhu moo def ca moo disparaître ca Salonique ca guerre nit la woon koo xam ne dafa teel a fees ci xam-xam danaa ci egsi ci su ma duggee ci dossier damay lim rek bu ma leen limee ba pare ngeen xam ne ñi ma lim ñëpp kat jóg naa ba ubbil naa leen dossier wër naa ko ba dajale ko suñuy Ahmed Sy radiallahu anhu mooy taawu Seydi El Hadj Malick bu góor mam fat si mooy taawam bu jigéen sëriñ babacar si radiallahu anhu cheikh haji mouhamadul mansour si radiallahu taala anhu sëriñ haaji touré radiallahu anhu sëriñ aliyun gueye radiallahu anhu sëriñ moussa ñang radiallahu anhu sëriñ abdulhamid kan radiallahu anhu mouhamad taban al alawi radiallahu anhu ahmad fall radiallahu anhu Mauritanie la dëkk mouhamad fall radiallahu anhu Mauritanie la dëkk mouhamad ali wuldu fatan Mauritanie la dëkk radiallahu anhu Chérif Almani ibnu Chérif Younus Chérif Aliyun Chérif Bachir Serigne Youssoufa Diop Chérif Youssouf Cheikh Seyer Gueye Serigne Aline Diop Maymoun Serigne Cheybatu Fall sëriñ Cheikh Ndiaye Mabey alxaaji Yilimaan Saaxo sëriñ Malick Sarr alxaaji Rawane Ngom Paal alxaaji Ahmed Cissé Pire sëriñ Youssoufa Ndiaye sëriñ Birayim Diop sëriñ alxaaji Mbay Baasin sëriñ góor gi Ngunte Diop sëriñ alxaaji Thierno Darame alxaaji Babacar Diop Njaxeer sëriñ Mamadou Xujja Si sëriñ Mamadou Binte Si sëriñ Mamadou Aminata Si Cheikh Mor Lo cheikh Mor Anta Kebe cheikh Malick Ndiir qaadi Abdullahi Samb qaadi Alioune Dia qaadi Issa Samb Baye Momar si ca Gosaas Serigne Moussa Ndoye kii mooy dossier bu njëkk ba ñaareelu dossier ba Serigne Ndiaga Ndiaye ci Ngumba Ngeew Serigne Alioune Ba Serigne Magueye Ndiare Alxaaji Abdusalaam Lo sëriñ Madun Sarr alxaaji Baragay Nayobe sëriñ Góor Saane Ñang ca Jolof alxaaji Abdoulaye Mbeng ca Jóg Mbuula alxaaji Daawuda Ja ca Mbëllaxe alxaaji Mamadou Xasan Ndoy ci Ndakaaru alxaaji Samba Ngoti Loo ca Bandeñ alxaaji Cheikh Baba Njong ca Podor alxaaji Mamadou Anta Sàmm ca Kébémer ñu ñooy ñaareelu dossier bi ak ñeneen ña ma ber ca beneen dossier ba waaye ñii ku leen bëgg a génne ci couche pour le Sénégal ak liñ fi tabax looy defee te li ci doy waar kenn ku ci nekk xam-xam ba mu jàng am ci spécialité benn professeur bi moo ko jàngal mu di Seydil Hadj Malick la ci gën a doy waar léegi nag ñu ubbi ci Pape Ahmed Sy radiallahu anhu Seydil Hadj Malick ubbi woon na école ca Ndar ci lii André le Bon école booba ka jëkk a taxaw di ca jàngale moo di maamu alxaaji Dul Sàll bi di Pape Sidi Ahmed Sy nekkoon ku tabe koo xam ne lu mu mës a fanaanoo su xëyee te laajuñu ko ko mu topp mbeddi ndar yi di ko saraxe ki ma ko wax moo di docteur Moustapha Sow nee na bàyyam alaaji Amat Lamin Sow moo ko ko wax te moo bàyyi Sidi Ahmed ñoo des àndoon ca guerre ba góor gi Amat Lamin Sow boobu nettali na ne Pape Sidi Ahmed si bi muy disparaître trente minutes lu jëkk gisatuñ ko nee na dafa ñëw ci moom ni ko Mamadou Lamine mu ne mu ne ko yoreetuma benn téere bu bokk ci alquran te man warumaa teqali ko alquran Pape Mamadou Lamine Sow daal di jël kaamil bi mu yoroon xar ko ci digg bi jox ko xaaju kaw bi téye xaaju suuf bi nee na mu won ko gannaaw mën ko dégg mu naan wallahi ngeen baal ma inni daawtuka daa xawfin fa xuz bi yadi jaacila la xaali bayna alkaafi wa nuuni nee na loolu la ko dégg mu wax ba gisatu ko kooku benn xikaaya la bu ma tegtaloo bi ci des góor gi ma sayar ndiir ma nga nekkoon ca ngaay nekke moo juróom moor ndiir boobu nga xam ne chef de gare la woon ñett li na ma ci bi may xale di jàng nee na diir li ñu nekk ci guerre bi te moo Pape Sidi Ahmed ñoo àndoon nee na dafa leen daan wax ni leen bisu dund bi bisu dee te la Sidina Ali ni waxoon ne ku deewul ci jaas yëpp leneen rey la as gor day gore addina gore alaxira Pape Sidi Ahmed boobu bi ñu koy laaj Sidi Hajj Malick pour mu dem ci guerre bi du sàll bii nettali na ma ne dafa am ba Seydil Hadj Malick toog di firi alquran ba ci génn suratul baqara mu toll ci li ñu wax ne wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fa rihanun maqbuda muy wax ji yàlla wax ci alquran ni su fekkee da ngeen a nekk ci tukki te bëgg a leb leen te ci bor te amuleen bindkat bu boobaa yow miy leb mën ngaa génne garanti jox ki nga xam ne moo lay lebal mu wane ne séq ngeen bor ñu ne Seydi Hajj Maalik di tafsir laay boobu benn waaye nga tëdd ci mbooloo ma xamuñu kan la Seydi Hajj Maalik egsi ci laay ji nee na waa ji ni ñokket ni ah nee na Maodo ca modeste ga mu ni ko ndax damaa juum waa ji ni ko juumuloo waaye ma firil la laay bi wa in kuntum dem nekk ngeen ala safarin ci réew tubaab walam tajidu te amuleen kaatiban gànnaay yu ngeen xeexe fa rihaanun joxe soldaar maqbuubatun lu ñuy nangu la Sidi Hadj Malick ni kon Sidi Ahmed day dem soldaar waaw Sidi Hadj Malick ni Sidi Ahmed day dem soldaar jëlee naa ko ci ñetti nit kenn ki mooy dub sàll bi parce que Sidi Ahmed boobu dafa teel a fees ci may teel a fees ci xam-xam teel a fees ci njub fii ci njaxati njaasaan Abdou Aziz Tall directeur de la LONASE maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel di la félicité ci pal googule yal na la ci yàlla defal jàmm defal la ci sutura defal la ci barke téléphoné naa sa bureau ak sa kër ñu ni ma da ngaa nekk réunion soxna si ni ma ñëwagoo bàyyi woon naa fa message ba yàlla na la jig dégg nga de lu ma doon waxati
dafa teel a fees waaw dafa teel a fees dafa teel a fees waaw fii ci njaxate njaasaan am na benn jëmm bu ko soppoon lool dénk ko boppam mu génn àddina fekk Pape Sidi Ahmed nekk ca Ndar ñu yëgal ko ni ko génn na àddina góor gi war fas pour jëm si ci moom yegg si fekk ñu rob ko ba pare daf na cëpp rek ne denc ngeen sama soppe ba waaye jiitu naa leen ca de ñu ne ko noonu ci jiitoo mu ne ñëw leen ñu dem ci armeel yi ñu ñëw mu ne du fii ngeen ko dencoon ñu ne gas leen nekkatu fii de ñu gas fekk àll furaax Seydi El Hadj Malick ko juuf kon tariqa bi li am ci karaama du jeex dañ ko démystifier ñoom parce que li Ahmed boobu Seydi El Hadj Malick nekk na bés ci mihraabu jàkka ji yal na la yàlla dolli tawfiq waaye gëwma nga mel nii nu bokk fi nekk kon Maodo gisoon na lépp waaye Cheikh El Hadj Omar bu disparaître Seydi Ahmed disparaître am na lu muy firi def naa ko ci dossier ba ma yaatal dama ko tudd nii rek damay jàll léegi ci Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu Seydi El Hadj Malick yàlla daf ko may lu rëy laaye bii nga xam ni moom la waa ji ubbee Haroona Diagne mu di muhammadun rasulullahi melo ya laaye ja wax yàlla daf ko ko tasaareel ci biiri doomam ak ak muxaddamam wax jul gi nag dama ko wax pour initier ci wax ji waaye waxuma ne kër Seydil Hadji Malick tolloo nañu ak saxaaba ya waxuma noonu de ndax am na ci jawaahirul maani bunt boo xam ne muy baabu fadlu saxaabati maa ada nabiina wal mursalin gën ji saaba yi gën ku dul yonent yi bunt la spécial ci jawaahirul maani Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu mas day waxtaan ci li ko yàlla may ba yàgg am ku ne ko xanaa kon jot nga saxaaba yi mu ne masalu amalina maa amali ashaabi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ka masali namlati maa surat alqatat sidna cheikh ni la ilaha illa allah maak sama taalibe yi ak ku dul ñun ñoo ngi ànd mel nay gunóor di raam ci suuf saaba yi mel nay picc di naaw ci asamaan sa sidna ali xarazim baraabi alfaaz yi ni ko dégguma piri mi mu ni ko kon ma firil la ko ci nii piri maa ngi ca mashahid mu ni ko saxaaba bi bis bi muy tuub si dafa ñëw rek jàkkaarloog yonent bi daal di adopté wu ca milieu booba man nag damay jaamu yàlla ba jaamu yàlla ga yëkkatiku yonent bi door a mureeku ma gis ko kon fi ma plafonné mooy fi saxaaba bi déparé woon kon bu kenn dem ne dama gam-gam le kër Seydi Hadji Malick ak saxaaba ya
خلف رسول مضاد فاتي يبا لمود فالتس مخيج بالك صدوم رسول بلدي ذات بنول موت دنجي جمع ورس لو jërëjëf كان لا jërëjëf tabarakallahu tabarakallah
يوم الوالا neex na da xataayu waxtu wi rek a ma jaaxal waaw way wu de neex na xataay bi rek moo ma jaaxal de ci laaye jooju sifaat melo ya laaye ji ëmb yàlla dafa may Seydi El Hadji Malick tasaareel ko ko ci biir njabootam ak i muqaddamam gis nga ashiddaau ala alkuffar mooy sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu سيدي أبو بكر في مثل عمر بن الخطاب في الوقف والهمة والصدق والفارق بين الحق والباطل سيدي أبو بكر سي غور جي بوني كاري بي بوكو خول رك image سيدنا عمر لا lay jox ci taxawaay ak yitte ak dëggu ak matal kóllëre ak farlu ak yem ci benn place ashiddaau ala alkuffar ulama yi ne ñu mooy sidina omar te mooy koo xam ni kattanam ak force am yéefar yi la koy wan ay ku masa noonu tariqa bi bu ko fiiñ Babacar yégee rek def baaraamam ci sa bët
يا كل دون دون البرج tasuloo yaa tari gën kenn ku la dem si ku la roy roy na asxaaba rasool ci lu war jawaana ne góor gi tasuloo yaa tari gën ku la dem si ku la roy roy na asxaaba rasool dana tuut sa tam ku ko dem فنتوب تبا وقبل الداحم كي يودا صدقا تكتس بالجمود بربل قد من البسيط باب دين كرن ما رمل وما في ما لجد فكما تبا بدر فكل كمان يكلم يومي تجبت فاكتفى لحتي خجل انه ممرض مالك وجرد هدانا منعتيكم فلن تبي كتب الدور أكرم به